xal ah. moy hmm. ay mi ay mini moy hmm. kana kuy ñew di visiter kër doo ñëw minuit moy nga wa xaar ba yor yor wala ba ay 10h 11h midi 1h nga ñew du fekke di la tektal kër guy jaay pour wala sangar nga ne kër gi la jëndon pon wala kër gi la jëndon sangar ñu japp ki la ko jaayoon yobbu ko wala amul hmm. wa ñew dem ba minuit moy ñew talu mot juroomi auto ñëw ba ci papar kër nit ngeen di génne ay jaaseeg dóor ak bant di di di di ay bopp kana loolu kana ñoom wistuñu wistuñu wistuñu poon bu ñu dañoo bañoon ñoom kenn bañul yëg kenn yëgul yéen sax ñoom dañoo jékki rek jékki rek ma ba ci kër dañoo bett kenn yëgul kenn yëgul leen ñoom kenn yëgul leen ñoom dañoo jékki-jékki rek ñu ne dara ci kër kenn yëgul leen ndax kii kii dañoo fekk mu ngi nelew kay ñi kay kii ñi dóor dañoo fekk mu ngi nelew xanaa xanaa ku nelew moom deful dara. léegi ñu lu ñu leen wax. dara góor yi fi ne anañ gën leen ñu nangam taan seen day lañ fi wax. kese góor ñi fi ne ana góor ñi jigéen ñi yuuxoo ñu ne soxla wuñ jigéen ñi góor lañ soxla lañu gën nañ nangam taan seen day lii di lañ ba fi wax wax ñu fi leen ne. am na béy gis ngeen leen wante xar yi gisuñu leen wante am na lu am la yaa ngi dégg. ñii ñu ngi tëdd hôpital ñii yóbbu nañ seen alal ñii yóbbu nañ seen xar ñii yóbbu nañ seen xaalis dama yaakaaroon Baye Fall Baye Fall su fekkee da ngay doxee ndigal soo ñëwee ci kir da nga war a xam nooy doxale ndax ñun ñëpp ay murid lañu ñun ñëpp ay Baye Fall lañu euh, ñun gisu gisuñu ku faatu ñun ñooñu gisuñu dégguñu ñu gisuñu de dara ñun ñun daal seen burwe lañ dégg dégguñ leneen ñun daal burwe Baye Fall lañ dégg ku la wax fii dégg na beneen burwe wax wax na. bi ñu xamante ne ñoom ñëw na nan ngeen réagir nan ngeen lañ taxawee. jigéen ñi wooy wooy wooy ñu yu yuuxandoo ñun ñëpp añ daj biir ci état bi ci ñun ñëpp jigéen ña lépp moo taxaw fii ci état bi wante ñun gisuñ fii leneen lu dul bett nañu dóor nañ bi ñuy bukkatee lii lañ ci gis. kan ngeen bëgg. affaire bi. ñu bàyyi li ñuy def ngir yàlla ak jëmu Serigne Touba Mbacke ndax gën ñu ñoom gën a ñu ñoo nekk ay murit ñun ay murit saa def yaa ngi dégg ndax fii mooy suñu cosaan ñun xamuñu fenn fu dul yaa ngi dégg daar Rahman ñu fii lañ fekk jumaa ji fii lañ fekk suñuy maam fi koy tabax fii jumaa ji ne teen moo fa nekkoon suñuy maam ñoo doon wëpp foofu ay nag yaa ngi dégg nag génn ñu gën ñu ci Serigne yaa ngi dégg jumaa ji sama maam def na juróom-ñaari kàbbaan kon nag xam nekk ay murit sëñ bi ah, sëñ Mountakha li muy tere ñun ñoo gën a ñun ñoo koy gën a tere loolu la ñuy bañ fii lu mu bañ Tuuba rek ñu bañ nañ ko fii. Baay Faal man buleet démb mm-hmm. ma gis leen def ni façon bi ñu def buleet démb mm-hmm. wante lii moom nañu dimbali ngir yàlla bu mu ñaaraat. ak sàmm ñun bay ak sàmm lañ fi doon def bi bor nañu ñëwee mm-hmm. ñu bay bay yaa ngi dégg. ñuy sàmm gisuñu fi tool gisuñu fi dara dul ay bor. fii mooy cay faali cay faali cay faali lii ñuy wax fii ay teenu maam seex ay fii ak ay sekew euh, dara amu fi woon fii daaru marnaan moo fi amoon kër ñaŋ sol bokk cay faali boo bëril waaw boo dëkk moo ñu fekk fii ñun borom dëkk boo ñu fekk fii de ñun fekk si fuñ moo ñu fekk fii yaa ngi dégg borom dëkk moo ñu fekk ñun fekk fuñ ko de moo ñu fekk Mhm. yaa ngi dégg moo moo ñu fekk ñun ak sëñ Abdou Mbacké borom diir borom dëkk moo ñu fekk dañu fekk wuñu kenn mhm. yaa ngi dégg fii moo fi nekkoon cay faali sol boog boobaril sëñ Gumba salla mais mhm. ndindi sëñ Fallu ndindi pël ndindi sëñ Fallu daar Rahman béyleel nay lii moo lii moo fi nekkoon soo musaana jóge fii ngay dem tu jumaa ja fii lañ doon def tànk juli jumaa ja saret amu fi oto amu fi kon nag ñun duñu fii ay ay tourisme fii ñun fii lañ dëkk ci dañu doon wër li ñuy tere si dëkk bi ndax chef de bi bii keroog bi sëñ Muntaxa waxee day tere ci dëkkam nangam keroog tànkam la def kër yu fi nekk yëpp da leen wër ku ne mu nekk sëñ bi joxe na ndigal dañuy tere nangam dañuy tere nangam te kër gii sama maamaati maam sax moo ko mag waaye lu mel ni musu fee dégg ken musu ko fee dégg hmm? léegi nag kuy tere loolu dox tànkam di wut tere loolu si biir ci biir ay dëkk ndooyam kiram loolu war nañ ko nee nañu pôle lañu doon wër nii lañu doon wër waaye fekk gisuñ fi dara ah jàpp nañ kii jël nañ ay juróom fukki xaram moom mi alaji dem mi rakkam dóor nañ ko buntu néegam lañ ko dóori daj ñu daj porte bi bu dóor ko ba mu nga ne jànnat ah ñu yóbbu quatre cent cinquante mille bi mu yoroon yaa ngi dégg ah, keneen sama doomi nijaay kee itam kooku fii lañ ko dóori man maa ko yóbbu woon ndaamaat yaa ngi dégg nga xam ne moom jur yii fii lañ ko fekke dóor ko mu ngi mu ngi hôpital léegi nag bu ñu defee loolu nag ñëw fekk nit ci géttam dóor ko rawale loolu dugg ci biir kër fekk ay jigéen di dagg ay bunt di sànni ay gone loolu kay kana kana lu ne mun na faa war a man moom seedu wu ma Baay Faal bu dee seedu wu ma bal seedu wu ma dara man bi ma doyee ma ñëw ki gaa ki nga xam ne bu gaa ki ñu dóor ci bopp bopp bi toj maa ko jël yóbbu ko ndaamaat yaa ngi dégg ki nga xam ne moo wattoon gerte gi ñoo daanu ci moom dóor ko fii doog dugg seen néeg yi jigéen bi doon wax fii mooy maga dafa ay léero moom dem ma ci néeg yi man ma foofu laa ci waaye nag lépp lépp lépp bu fekkoon dañu agsi woon ci njëkk ak terànk ñoom ñëw nañu fi ñu naan am na ku ñu yónni ñëw na fii jënd jëndaat jënd jëndaat kanakaay ki ñëwoon jënd jëndaat kooku war naa mën a jiitu mu naan kii moom a jaay jaayaat wala du dégg wala mu naan kër gi laa ko jëndoon jëndaat waaye ñëw nañ fi kër yi kër gu mag la rek ku nekk ak kiram ku nekk ak kiram ah kër seet village lañ ñun kay jàmm rek lañ bëgg ni kii ni sëñ bi sante woon ni sëñ bi sante woon ki sant ñu ko ñun ci loolu rek la ñu wéy ci ndigal la ñu wéy ñun itam ba tey Baay Faal yi nekk Baay Faal waaye ñun itam ay murit la saa def lañ nangu murit tam ndax kii keroog bi ko sëñ bi dogal waxee loolu. daa sol dal la mooy chef du village bi kër mu village yëpp da leen koo wax ni mu bëggee foofu jàmm nuñu tam noonu dong lañ ci bëggee jàmm lu ñuy tere buñ ko gese suñu bët sax ñun dañ koy tere sëñ bi lu mu lu mu santaane lu ñuy tere buñ ko gisee seetuñu Baay Faal seetuñu gendarmerie seetuñu police dañ koy jéem a teral suñu bopp duñu xeex nag duñu def dara